ñoom nee ñu bés bu ne danañu produire lu tolloog quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz. yéen ñëpp dégg ngeen gis ngeen ni euh, le le chancelier euh, Olaf Scholz ñëw na fi dimanche seet si Macky dina leen jaral lépp lépp lépp lép lépp pour ñu teg loxo ci suñu gaz bi ñuy produire saint te. Euh, gaz bi si quelque mois lañ koy produire ñun li ñu am dañ ko war a xam parce que dañu tollu ci contexte boo xam ni on doit tirer le meilleur de nos ressources bu ñu deful ndank tubaab yi il risque de nous imposer Macky Sall même au-delà de 2030 parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent bu ngeen fàttaliku yàgg naa di wax ni euh, Sénégal yàlla daf ko may xéwal boo xam ni euh, Europe daf ci teg bët et principalement euh, gazu Saint-Louis bi yàgg ngeen ma dégg ma naan gazu Saint-Louis bi moom la Europe ci moom la Europe compté pour briser la monopole russe sur le gaz européen ci contexte bi ñu nekk nii demande boobu dafa gën a jéggi dafa gën a stratégique dafa gën a exacerbé dafa gën a pressant yàlla daf ñu baaxee benn gisement bu nekk diggante frontière euh, Sénégal ak Mauritanie bu ñu tuddee Grande Tortue Ahmeyim ñun ñu tuddee woon ko gëmbal yàlla daf ci dë dëgëñ dëxëñ soixante-dix trillions de pieds cubes de gaz trillion mooy mille milliards mooy un trillion loolu la ñu xaymaa potentiel li tëdd foofu ci gaz te loolu xayma rek la parce que yàlla rek moo xam lu mu fa dëxëñ ñu mu toll donc xayma doomu aadama kese la ci seen xayma tamit euh, Cosmos ak BP Cosmos surtout nee na gisement boobu c'est exploitable pendant deux cent soixante dix ans ñaari téeméeri at ak juróom-ñaari fukk mën nañu di ngacc ci gaz boobu te du ko tax a jeex. ñoom nee nañu bés bu ne danañu produire lu tolloog quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz bi yoon mètre cube laa wax quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz day tolloog deux millions cinq cent mille tonnes par an en début d'exploitation donc loolu la Europe te woon bët bu yàgg laata conflit bi ba ma doon leen wax ni benn femme buy liggéey BP mooy la patronne de BP pour le Sénégal et la Mauritanie qui s'appelle Emma Delaney c'est la patronne de Macky Sall et du président de Mauritanie surtout le président Aziz euh, qui a été déchu kooku moo tënk président Aziz ak Mauritanie pour ñu trouver un accord pour exploitation gisement Ahmeyim euh, Grande Tortue bi parce que ñoom dañu amoon ay impératifs de, de production pour briser le monopole euh, sur russe sur le gaz européen loolu ñu ngi ci deux mille vingt contexte boobu moo évoluer di évolué di évoluer ba guerru Ukraine bi ñëw li waral jotaay bii nag mooy yéen ñëpp dégg ngeen gis ngeen ni euh, le le chancelier euh, Olaf Scholz ñëw na fi dimanche seet si Macky parce que Allemagne mooy état bu fekkee ni yéen a ngi suivre euh, conflit ukrainien bi mooy état européen bi gën a réticent ci sanction yi ñu war a appliquer Russie euh, parce que moom nee na il ne pa pas l'Allemagne elle ne peut pas se priver du gaz russe mënu ko loolu c'est lui demander de se planter une couteau un, couteau euh, dans le ventre loolu mënu ko kon moom amagul solution pour approvisionnement am en gaz léegi américains yi dañu bëgg a profiter ci conflit pour jaay Europe gaz de schiste mais gaz de schiste non seulement day gën a cher parce que bu ñu koy indi et c'est de moindre qualité que le que bi nga xam ne moom la euh, Russie di jox Europe. loolu problème la épine la ci tànku euh, Europe parce que ñoom ñëpp dañu bëgg a pour daan Russie sanctionné leen euh, bañ a bañ a jëlati seen gaz moo tax léegi pour substitution Allemagne ñëw Sénégal pour waxtaan ak Macky pour waxtaan ak Sénégal pour que suñu gisement bu énorme boobu suppléer carence bi ñuy am ci bu fekkee ni Russie euh, indeetul euh, euh, gaz Allemagne parce que Russie nee nañ leen dinañu arrêter de toute façon seen approvisionnement en gaz bu ñu fayul en rouble wala en yuan donc léegi loolu moo tax moom mu ñëw fii ba mu fi jógee Niger la dem Niger lan moo fa am uranium uranium mooy énergie nucléaire mooy nucléaire donc ñoom tubaab yi ñoom riche yi ñoom pays développé yi sans ñun duñu dem la ñu soxla yëpp mu ngi ci ñun ñun ñoo ko yor kon ñun suñu wàllu bopp ñun li ñu am dañ ko war a xam parce que dañu toll ci contexte boo xam ni on doit tirer le meilleur de nos parce que tey la ëpp solo tey la ëpp valeur tey la ëpp prix tey la ëpp enjeu géostratégique tey la ëpp enjeu économique tey la ñu war a gën a mën a respecter Sénégal mais ñoom dina leen jaral lépp lépp lépp lépp lépp pour ñu teg loxo ci suñu gaz bi ñuy produire Saint-Louis te euh, gaz bi d'ici quelque mois lañ koy produire deux mille vingt trois la ñu wax léegi loolu am na beneen jaan bu ci laxasu ñun euh, dañu commandé Sénégal ak Mauritanie benn plateforme flottante de liquéfaction de, de, gaz donc c'est un c'est un terminal méthanier flottant boo xam ne ñu ngi ko war a installé au large de Saint-Louis à huit kilomètres seulement des côtes euh, boo xam ne moom moo war a extraire euh, euh gaz gazu euh, Saint-Louis bi ba noppi séddale ko Euh, navire boobu FPSO boobu da ngeen euh, euh, familiariser wu ak moo boobu ñu ngi koy defaree Chine daanaka pare na ci contrat yi dafa waroon nekk moomeelu Sénégal ak Mauritanie après dix ans d'exploitation dañ ko dafa war a nekk suñu alal suñu bien suñu infrastructure après dix ans d'exploitation Macky Sall demoon na fi Mauritanie di essayer avion bu bees bi mu jëndee soixante milliards demul woon pour essayer avion bu bees bi mu jëndee soixante milliards dafa demoon pour signer beneen accord boo xam ni accord bu ñu publié wul la bu ñu waxul kenn la ba nga xam ni plateforme bi ñu waroon revenir au bout de dix ans d' dañ koy joxe en location dañu koy jox ñun en location ad vitam aeternam c' est à dire dañ koy défalquer des coûts de production euh, pétrolier donc Macky Sall dafa dem signer pour que loolu nekk toujours somme boo xam ni Sénégal ak Mauritanie ñu continuer di ko fay moom ak ñaari moom ak président Mauritanie ñoo d' accord loolu ba noppi 10 pour yi ñu waroon am ci bloc boobu léegi 5 cent lañ ci am mais problème bi yemul foofu fii conjoncture Europe ak Russie toll tubaab yi allemand yi français dana ñu def tout pour am Sénégal président bu leen di signer lu ñu bëgg d' ailleurs invité nañu Macky Sall euh, dans quelques jours fële euh, sommet G7 sama yi nga xam ni pays développé yi ñoo fa ñoo fa nekk pays européens yi ñoo fa nekk invité nañu président Macky Sall sommet G7 dans quelques jours pour mu régler problème mu gazu Europe bi kon gazu Europe bi solution bi fii la te yàlla xam na ni yàgg naa leen ko wax ñi ma daan déglu yàgg nañu dégg avant conflit bi ma naan on compte sur le bloc de Saint-Louis pour briser le monopole russe sur le gaz européen donc léegi sur le plan maintenant politique et c'est là que c'est important sur le plan politique bu ñu deful ndànk tubaab yi il risque de nous imposer Macky Sall même au-delà de deux mille trente parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent kooku muy benn ñaareel bi euh, ils vont pas chercher au Yémen en Irak en Iran du du, du gaz ou ailleurs parce que Algérie dañu verrouillé Euh, parce que yàlla a l'influence russe là-bas parce que Algérie tam jëm nañ fa régler le problème du gaz fan yi rek euh, ils ont refusé ñu ñëw Sénégal donc léegi ils feront tout pour ñu am un valet au Sénégal parce que xam nañu ku mel ni président Ousmane Sonko par exemple c'est un souverainiste li may wax nañ ci bàyyi xel de c'est un panafricaniste c'est un souverainiste te gis nañu li xew Mali il un vent de, de, souveraineté, de souveraineté qui souffle en Afrique. Il un vent panafricaniste qui souffle en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina, un peu partout, et même au Sénégal. te ci contexte bi Sénégal bu amee un président qui est en dehors de tout système comme Ousmane Sonko par exemple dina mën a euh, asseoir souveraineté économique gu Sénégal ak souveraineté politique gu dëkkam comme Assimi Koïta ni mu koy defee xam nga par rapport au au au aux Français toujours dominé le Mali ba doon leen jox sax autorisation de vol dans leur propre territoire ñoom ñu dindi loolu parce que loolu c'est c'est c'est une aberration c'est aussi une aberration nit ki am yëfam ñu ni ko tubaab bi ni ko yow 10 pour cent nga ci moom 90 pour cent bi ko donc loolu moo tax Olaf Scholz ñëwul Sénégal ñun dañu am un président boo xam ne. mais lu ko Macron sant lay def lu ko Union européenne sant lay def parce que Macky Sall intérim moo ñu jàppale ko rek mu maintenir au pouvoir donc s'il tient l'intérêt des Européens entre ses mains nga xam ni mën na ko brader mën nañ leen jox ay garanti par rapport au Russes mais il ne se fera pas de scrupule il va leur dire écoutez euh, moi pour que je puisse défendre vos intérêts il faut m'aider à rester parce que mon pouvoir est menacé parce qu'il y a des jeunes chose Il y a un homme politique qui prône autre chose. Donc, euh, voilà. Ouattara, il est bien président euh, en Côte d'Ivoire. C'est le troisième mandat là. Alpha, Alpha, Alpha euh, Condé. Des coucou d'État. Troisième mandat là, te ñëpp ngi seetaan Idriss Déby ñaata yoon la dépassé mandat je crois qu'il était à six mandats avant son assassinat euh, Mobutu Sese Seko c'était un dictateur France moo ko ngemboon Omar Bongo c'était un dictateur France moo ko ngemboon tous ses intérêts Jean Bédel Bokassa empereur de Centrafrique extravagant di jël ay diamant réew mi di ko fooye Giscard d'Estaing moo ko ngemboon fa la doon vacances di am foofu ay diamant ak seen affaire donc ñoom démocratie bi ñuy prôné ci kaw la nii rek mais seen intérêt bu taxawee affaire démocratie amuko ko amatu kon tey jii Macky s'il règle le problème du gaz européen avec notre gaz jox tubaab yi ay garanties ils seront prêts à le maintenir et ils ne voudront pas prendre le risque qu'un autre pouvoir vienne ici jouer les souverainistes défendre les intérêts du Sénégal donc foofu mooy yàqu waxtaan bi c'est-à-dire impact bi muy am ci suñu politique intérieure ñun ak impact bi muy am ci suñu état démocratie Macky Sall, c'est quelqu'un qui est prêt à tout accepter pour se maintenir au pouvoir et rester au pouvoir te fi mu nekk ni européens yi jaaxle nañu jaaxle jaaxle boo xam ne jaaxle nañu ba fi jaaxle yépp ils sont prêts à faire toutes les concessions Macky Sall est en position de force ils sont prêts à toutes les concessions pour avoir notre gaz information information gaz bi nga xam ni moo lukki bëtu européen nekk Saint-Louis production de quatorze millions et demi de mètres cubes par jour wala six mille huit cent cinquante neuf tonnes comme vous me l'avez si bien calculé par jour est-ce que xam ngeen ni li nekk Kayar bloc de Kayar moo ëpp li nekk Saint-Louis yàlla moo ñu defal loolu est-ce que xam ngeen ni Sangomar ak Jifeer am na gaz je certifie sur l'honneur que gaz boobu nekk Sangomar ak Jifeer moo ëpp gaz bi nekk saint bi nga xam ne ci la européen yaakaar pour régler seen problème kon ñun lan mooy suñu potentiel yi ñu ñuy classé bu ñu nekkee en phase de pleine production maanaam suñu exploité euh, Gëmbël Yaakaar Teranga c'est les puits qui sont à Kayar euh, exploité Sangomar Jifeer ak Rufisque même Rufisque am na gaz on sera dans le top 5 des producteurs de gaz dans le top 5 des producteurs de gaz donc li tubaab yi teg bët lu ko ëpp lañu am Kayar ak ak ak ak Sangomar ci fer kon tey ji Sénégal ay décideurs ay hommes politiques ay leaders ay journalistes ay intellectuels am ay étudiants ay citoyens war nañu xam lan mooy réellement potentialité Sénégal te ñun dañu war a jox ci suñu réew pour jëriñu ci suñu koom-koom ci suñu alal ci suñu am-am ci suñu moomeel il faut ñu moom suñu bopp il faut ñu conquérir suñu souveraineté il faut ñu asseoir suñu souveraineté par rapport à toutes les grandes puissances ak fu ñu mën ci bokk kon loolu c'est une mission citoyenne un engagement patriotique boo xam ne il faut que ñëpp redoubler d'effort takkuwaat defarwaat pour mën a jëm ci loolu ñu ngi en pole position li àddina bi gën a soxla mais ñun ñoo ko yor te yi sax ñoom it bu doon seen sago européens yi du ñu jot ci suñu gaz ñoom bu ñu ko mënoon xëccoog ñoom xëccoo ko xëccoo ñoom kon ñun fi mu nekk nii on doit tire notre épingle du jeu ñuy ñuy ñuy lécher ay bor euh, di jouer les les vassaux maanaam ay ay suq ay dungu ay valet valet Europe ak tubaab bi donc euh, loolu moo doon solo waxtaan bi. te bokk na ci li ma ci tiit impact politique bi maanaam ki nga xam ni nangul na leen ñoom ñu jéem ko samp suñu kaw loolu nag lu nara metti lay doon bu ñu jéemee samp euh, euh, Macky suñu kaw ngir seen intérêt ñoom seen intérêt énergétique et minier européen yi par rapport à ce conflit là euh, dana metti trop parce que boobaa day laaj beneen taxawaayu Sénégal yi pour ñu jot ci suñu réew te jot na ñu jot ci suñu réew